rek ci parce que tey ji ci wàlli tey jii ci wàlli li ñu mën a tey jii li ñu mën a wax mooy dañuy ñu woowoon ci conseil municipal bi préfet bi convoqué ñu pour ñaari point point bu njëkk bi mooy ki nga xam ne moom la ñu fal maire ñu ñu ñu taxawal ko ñu ñu ñu ñu ñu jox ko mun li ñuy wax ndombal tànk bi nga xam ne moom la ko population yi jox ci élection yi beneen point bi mooy ñu fal ñi ñu woowe adjoint au maire li ci xew mooy premier point bi defar nañ ko ñu ñëpp d'accord nañu ndax le 23 bi élection yi jeexee la ñu d'accord ne pour ville de Guédiawaye Yewwi moo ko gañee te Ahmed Aïdara mu doon seen tête de moom mooy nekk maire ville de Guédiawaye rafet lu rafet rek lañ ci mos a wax lu rafet lañ ci mos lañ ci mos a taxaw waaye nag bi ñu demee ba instauré ko ba mu des ñuy fal adjoint yi ñun ñëpp ñu d'accord ci li code électoral bi wax ak code général des collectivités territoriales ñu ne kat adjoint yi dañ leen di fal benn par benn. ñu ne premier adjoint yi moom ñaari candidat benn candidat Yewwi ak benn candidat Benno Bokk Yaakaar moo am ay ay mbañ gàcce isoloir euh, nit ñi ñëw voté voté ñi fa nekkoon yëpp conseillers ba mu nekkoon quatre-vingt-quatre conseillers ñëw taxaw voté ñu compté ba mu mat candidat Benno Bokk Yaakaar am 44 voix candidat Yewwi am 40 voix ñuy xaar mu installé ko parce que code bi ci lu bees moom mooy maire bi mooy installé euh, adjoint bi ñuy xaar mu ñëw Euh, takkal adjoint bi euh, li ñuy woowee euh, écharpe bi ñu ne moom arreter nañu élection élection du fi amati. mu teg ko fan. ah fi mu ko teg nag moom nga koy laaj parce que ñun li ñu gis li ñu gëm mooy démocratie dafa am fi mu fi ñu ko teg démocratie ci collectivité locale. donc koy boo ko gisul ci constitution bi gis ko ci code général des collectivités territoriales wala gis ko ci code électoral bi loolu yëpp nag li ñu wax mooy bu ñu commencé voter dañu war a dem ba mu eggale ba nombre d'adjoints yi jeex. mais mosuñoo gis tey la ñu mos a gis benn maire bu xëy ne moom kat arrêté nañu vote bi ndaxte en fait gagné nañu candidat bi mu présenté woon. loolu nag ñuy woo état bi mu ay responsabilités ndaxte bu ñu nee ñun Sénégal république la ñu démocra démocratie la ñu dafa am ay ay ay ay ay ay textes yi nga xam ne moom moo ñu moom moo moo ñu tënk ku nekk war ko mën a respecté pour démocratie kanam en tout cas ñun benn Bokk Yaakaar suñu engagement bi ñu am ci géejawaay bougéwul géejawaay nee nañu. Euh, wan euh, ci wot bi wan nañu ne am euh, joxuñu ñu meeru ville de Guédiawaye mais Guédiawaye jox nañu conseil yi nga xam ne nee nañu war ngeen jouer ci conseil municipal incha allahu rabi dinañ ko jouer boobu mat sëñ. baaraam tuuma ni askan wi dañoo tànnoon Ahmed Aïdara ngeen ñëw ba fii bëgg ko foqat yi lan tontu ngeen si. Ahmed Aïdara kenn mënut koo mënu koo tere nekk maire dafa dem élection ñu fal comme ni ñu war a fale maire Ahmed Aïdara mooy maire ville de Guédiawaye te préfet bi installé na ko tey donc loolu ñu koy wax dañoo xam li ñuy wax. li ñu wax kay mooy ni ñu nangoo ko ne waa Guédiawaye dañ ko jox dañ ko jox euh, dañ ko fal mu nekk maire ñu nangoo maintenant conseil municipal bi comme ni ko texte yi waxee war nañoo mën a waxtaan seen biir fal ay adjoint fal adjoint yooyu commencé nañ ba fal nañ ci kenn mu bokk benn bokk yaakaar dañu gëm ne dañu waroon a continuer ba fal adjoint yëpp ba mu mat bu ko defee Ahmed Aïdara bi nga xam ne mooy maire booleeg bureau municipal am ak conseil municipal mën a liggéey pour Guédiawaye jëm kanam ndax loolu rek moom ma fi am solo ci des yëpp amul njariñ. bu blocage bi liggéey bi. Euh, bi xamuñu ñun fii mu toll li ñu war def comme coalition wàllu politique dinañ ko def. ci wàllu droit aussi dañuy woo état mu jël responsable ndax préfet nga fi woon te préfet moom moo fi toogal état li mu war a def liggéeyam xam na ko ñun duñ ñoo koy jàngal duñ ko ko wax waaye ñun en tant que coalition dinañu waxtaan ba xool euh, ñun dinañu waxtaan. ba gis ñun nan la ñuy taxawee parce que ñun nag demo ay démocrate lañu lu code yi wax ñun loolu la ñuy respecté code yooyu nag li mu wax dul fi am fi tey te du suñu responsable responsabilité maire ay Aïdara la bi ne euh, wot du fi amati arrêté naa ne bloqué naa yëpp mais ñun du suñu wàll état bi moom mooy appliquer li nga xam ne moom mooy mooy règlement moom mooy législation bi fi nekk donc état bi la ñuy la ñuy xaar mu def ci li nga xam ne en fait moom mooy liy yoon ndaxte bu Sénégal bu ñu nekkee Sénégal bokk dëkk li ñu bokk mooy li ñu boole mooy constitution moom mooy loi yeeg règlement yi nekk ci dëkk bi moom moo tax ñu mën a suñu bopp république wooyee suñu bopp démocratie te loolu moo ci am solo. jërëjëf maa sant waaw xam nga euh, mun naa kii ne mën naa mën naa eggale woon ne li ñu wax ci code bi mooy. bu lu muy lu bees préfet moom mooy installer le maire maire moom mooy installer adjoint yi mais bi ñu fenn que maire dafa war a arrêter processus bi nga xam ne vote bi donc suspension de séance du maire mooy jóg di ko wax conseil municipal dafa am souveraineté bi nga xam ne am na ko te tey doxaluñ ko tey ci ci réunion bi amoon tey.